ba tey ci xëtam gu njëkk ci leral point net ouf de soulagement des populations ginnaaw gu njiitu réew mi signé décret d'extension maanaam yokk ñuy yokk almeeru Pikine yi njiitu réew mi président Macky Sall ginnaaw mu tontoo waa Pikine ci ab demande gi ñu defoon ci fan yi ñu jàll ci yokk almeeru Pikine yi ndax kat xat na njiitu réew mi gannaaw bi mu jëlee décret ngir yokk ko ci lu toll ci 4 hectares ci fi mu ne xibaar googoo ca mairie bu Pikine ginnaaw bu Abdoulaye Timbo daal doon amal ab point de presse maanaam di jàkkaarloog xibaar yi te tamit wax dinañ defaraat li nga xamante ne mooy mur clôture bi te yokk ñaari vigile ngir ñu dimbali ñi fa ne te kii di Abdoulaye Thimbo moom it nañu fa ne ci anam gi nga xamante ne jaarul yoon lu ci mel ni Ibrahima xalilu Fall jot nañ li nga xamante ne mooy sommation jóge ci Descos ci kàddum gu mujj mu ngi woo itamit ñi nga xamante ne mooy askanu Pikine ñu daal di toppatoo armeel yi beneen armeel gi nga xamante ne reclassé de mbaaw monsieur Thimbo moom nee na ñu ngi ci jéego yi ba tey